السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki جلدي yi mbokki àdduna نوني ñu من nuyu ñëpp man grand serigne de Thiès ndaw su bon soosu nga xam ni moo gën di ji ma gàkkal benn mag ci sunuy magu réew muy maam Cheikh Omar Foutiyou Tall yow de dama yaakaar ni ki nga attaqué danga koo xamul nitu yàlla la bokk ci généralu Cheikh Seydi Ahmed Tidiane yi réew mii wala adduna bii bu ñu fi wanaasu salaatul fatixi di ko fi saqami ngay dégg naasiril xaq bil xaq yóguloo ni moom la lépp bépp leer taalub diine bu fi ne maam Cheikh Omar Foutiyou moo taal taal boobu nga koy attake ngir lan loo bëgg wala dafa am ñu taxaw sa gannaaw wala dafa am ci lobi boo bokk laal nga laalaake nag te boo ko tuubul ñeen fukki fan lan la may billaahi martaba ba nga xamante ni bii képp ku laal tarixa bi dana la fadd muy rawxaan bi dal sa kaw yow yaa bon yow yaa njadde la la alquran waxoon firawna inna firawna tahawa baha moo la dal yaa réew yaa vulgaire tiim lu ku toll nii maam Cheikh Omar Foutiyou Tall nga xam ni kenn mënu koo gàkkal mu weex tàll la sol jihaat ci doonul islaam jihaat ci diine ji ba diine di yëg si fii tey amoo dara looy wax lu du di ko wax yow sax jaroo tontu na ku la ni jàkk xam ni xatamallahu ala qulubihim sa bi dañ koo kaste inchaa allahu nag maa la wax lii man grand sëriñ bis boobu arrièreul rawxaan baa ngi ñëw sa kaw dal sa kaw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu